da ko delloo bu baax. combat bi tey noo koy dundee. Euh, xanaa mbégte ndax man cousin wu boo Niang la ba pare nekk seetu Cheikh Yérim Ndoumbar man duma sax ñëw ci wante deret deret moo fort deret moo ñu yëkkati man moom te am nañ ci mbégte ñëw teew ci lu mel nii sa mag di bëre nga jóge cees bàyyi lépp daal di ñëw ay saay man xaw ma sax fu ma nekk barke Cheikh na Cheikh Sarr. non awma pression man mënuma am pression parce que xam naa sama cousin ba pare tamit xam nañ Balla Gaye Balla Gaye jaaxaluñu Balla Gaye même bu ko bu kenn laalul rek man mii rek mën naa ko daan. nga na Cheikh Sat waaw même bu ko kenn laalul mën léegi mën naa ko daan. borom borom ngeem la de. déedéet xanaa xamoo Balla Gaye boo ñaa même bu dul bëre gi mi bëre rek sax sëriñ la. ndax seetu Cheikh Ibrahima Fall la Balla Gaye kenn werantewul ba du borom gemb wante xamul booy Niang ba pare xamul ay mbokki booy Niang te loolu c'est très dangereux xamul ay mbokki booy Niang. li nga wax dafa garaaw de Balla Gaye képp koy wax lu ngay njëkk wax mooy gàllaajam yow nga ne Balla Gaye même bu ko kenn laal yow rek na Cheikh Saad luy gàllaaj. xaw ma sax luy gàllaaj xëy naa loolu duñ la ko mën a décrire fii parce que xaju fii mais boo ma boo ma comme ni nga ma gisee nii boo ma gisaatoon da nga naan déedéet du kii. yaay takk kii bi man du ma takk kadul man du ma takk kagul ñooñu ay ñooñu ay sëriñ la ñu ñooñu te man doomu sang laa doomu soxla la lépp mën nañ ko def ci kurus gi te duñ fi jóge barke Cheikh na Cheikh Saad te di nga gis loo musul gis tay du ay wax ni da nga far ak déedéet dépassé nañ ci loolu mais di nga gis loo musul gis. si bëre wala si gàllaaj wala si. ci lépp da ne Balla Gaye gàllaaj di nga ci gis lu ne lu muy ni ñu dagg ko. xëy fu lan la waxoon combat si Balla Gaye loxo Balla Gaye loxo Boy Niang. loxo Balla Gaye moom da kaa seet ba gis ko ba xam ci ku mu nekk. wala yàlla da ko wax moom xamul xamul fan la combat ngi nekk ngir ci première bis bi ñu ko jàpp muy premier janvier premier janvier kan moo ko mën a seet ba xam kan mooy daan ak kadul daan ku dul yàlla cheikh yàlla fi nekk yàlla moo xam lépp te xamuloo ko kenn nag wante ñun ñu ngi ñaan boo ñaan yal na ko yàlla may dam bu sedd guy ci barki maam Cheikh Yirim Ndumbaan ci barke Cheikh na Cheikh Sall bi jërëjëf Cheikh bi ñu la koy delloo bu baax macha allah jërëjëf waay Cheikh bi macha allah.